أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ba tey noo ngi ci suura al an'am bi iznillahi tabaraka wa taala ñuy jël tey juróom-benni aaya aaya 74 75 76 77 78 79 juróom benni aaya yi sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ciy jàngal juróom benni mbir bi ci njëkk mooy inkaaru shirk ala ahlihi sunu borom subhanahu wa taala mu ngi xamal di ñu jàngal ci aaya yi nekk sunu kanam bañ gi nga xam ne bañ nañ ko bokkaale waaye ak ñoñu bokkaale nekkul rek bokkaale en tant que tel moom lañ bañ ci islaam waaye même ñiy def jëf ci nit ñi koy def dañ laan dugal ci bañ gi nga xam ne islaam bañ na ko wa adami iqraarihim walaw kaanu aqraba annaas ila al mar'i ak ñàkk leen reconnaître donte ne ñooñu di bokkaale dañoo nekk ñu jege ku mu mën a doon moo xam ab yonent nga moo xam ab borom xam-xam nga kenn ku nekk ci ñun nekk jullit am pas-pas bu wér waroon nangu bokkaale waroon nangu ñuy bokkaale loolu ak ku mun doon donte ne baay la donte ne ndey la way jur bu jigéen wala way jur bu góor wala famille wala askan wala doom wala xeet waroon nangu bokkaale waaye waroo nangu ñi koy def loolu mooy li njëkk liñ war a jàng ndax xam ngeen bokkaale lan moo ci position islam lan la ci alquran wax mooy bakkaar bi gën a rëy bi nga xam ne nit bu ko deewaalee ëllëg te tuubul kenn du ko jégal yowmal xiyaama borom bi subhanahu wa taala wax nañu ne képp ku bokkaale yow yàlla araamal na sa tur ci waa aljanna borom bi wax nañu ne bakkaar yépp dinaa ko baale ba mu des bokkaale borom bi joxoñ ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam baaraam ne ko soo bokkaalee say jëf dana yàqu kon bokkaale baaxul ñaareel bi mooy fadlullahi taala wa tafaddulihi ala man yashaau bil hidaaya al mawsuula ila ala darajatiha bokk na ci li ñuy jàng tey ngëneel xéewali yàlla tabaraka wa taala yi nga xam ne du dañ moom yàlla subhaanahu wa taala di ko dotti di ko sotti mu nekk ay waame yuy walangaan ala man yashaaw ci ku ko neex bil hidaayati ci di ko jubal sunu borom moo yor njub ci loxoom la la nekk gis ngeen mu wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha sunu yeneen sunu sunu borom moo yor njub ci loxoom moo koy sotti di ko def ay xéewal di ko def muy lu walangaan loo xam ne ku ko neex mu daal la ci jotal yéegal la ci daraja yu kawe ya moom njub kon doomu aadama dañ ko ne mu góorgóorlu mu jéem a jaar ci yoon wi ndax sunu borom nee na wallazina jaahadu fii na lanahdiyannahum subulana ñëpp ñuy góorgóorlu jéem a jaar ci yoon wi dinaa leen ci teg kon dañ leen a góorgóorlul amaa njubal boppam dëgg nag ci loxo yàlla la nekk yahdi man yasha yudillu man yasha ku mu neex mu jubal la ku ko neex mu seetaan la ci maanduteem moom yàlla nga daal di sànku loolu danañ ko jàng danañ jàng tamit matlabul yaqin wa annahu min ashrafil matalib wa aazzuha càkkutéef gi nga xam ne ut gi nga xam ne doomu aadama war na ko ut mooy yaqiin doomu aadama am yaqiin ci yàlla léeg-léeg nit ñi danañ am dañ nekk ay jullit nekk ci islaam léeg-léeg nit ñi danañ am imaan waaye lan moo leen di manqué delluwaatal ginnaaw yéen ñaa ñëpp delluwaat leen ok lan moo leen di manqué mooy yaqiin nit ñi souvent duñu am yaqiin ci yàlla dañ am ngëm nag nekk jullit mais am ci yàlla kóolute mooy des nga wóolu yàlla comme ni yaayu Ibrahim yaayu Moussa wóoloo woon yàlla nga am doom mu nekk liir léegi la judd ñu ne la dugal ko ci ci ci kees kees gi nga dugal ko ci dex gi ndax xel nangu na lool xel nangu na lool dama leen laaj waaye yaqiin la yaayu Muusa am yàlla mu ne ko inna la radduhu ilayki dinaa la ko delloo man yàlla dugalal defal li ma la man yàlla naa la ko delloo mu am confiance am kóolute ci yàlla mu dem def loolu est-ce que yàlla delloo na ko wala delloo ko ah delloo na ko kon léeg-léeg doomu aadama yi danañ am nekk ay jullit danañ am imaan mais duñu am kóolute ci yàlla duñ ko wóolu te nag ku amul yaqiin moom mooy xam moo xam ne moo gën a tedd ci mbir yi loolu moom boo ko amul ci sa diine mooy ba nga xam ne sa ngëm yàlla des na mu ne wayu timm bi tafakkuri wa nazri fil ayat loolu nit nag lay amee kóolute ibrahima laaj na Muusa sunu bo astaghfirullah sunu borom ne ko won ma nooy dekkile ëllëg yowmal qiyaam doomu aadama yi yàlla li mu ko posé question mooy awalam tu'min xanaa gëmoo xaala bala walakin li yatma'inna qalbi gis nga pour ma ma am conscience ma am yaqin bu leer loolu rek laa ci bëgg kon yaqin a ngi noonu li koy maye mooy xalaat ak di xool ci aaya yàlla yi di xalaat ci aaya yàlla yi di xalaat ci univers bi parce que ngëm yàlla li koy joxe mooy ñaar al adilla al aqliya wal adilla an naqliya loolu mooy wane ima mooy wane ngëm yàlla ngëm yàlla ki ko bëgg a am ci ñaari mbir lañ ko bëgg a dimbalee pour mu am ko bu ci njëkk mooy ci tegtal yi nga xam ne xel rek moo koy joxe ñu daal la koy won jaarale lu fii ci xel ci xel ba nga xam ne yàlla mooy kenn beneen bi mooy ñu indi la ay texte yàlla nee na yonent bi nee na borom xam-xam yi nee nañ ba mu ne kenn daal di leer nañu ci yow kon lii maye yaqiin te mooy am kuulte gu wér ci yàlla mooy xalaat ci aaya yàlla yi waaye def te amul settantal bu baax a baax ci aaya yàlla subhanahu wa taala yi ñeenteel mooy istibdaal bil xuduus ala alwujud alsaani alxakim wa huwa allahu azza wa jal mooy tegtal dalail yi nga xam ne yàlla joxe na ko bil huduusi ala alwujudi li nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala moo ko amal muy lu ne fàng ci sunu kanam ñu koy teg bët guddeeg bëccëg muy lu sosu loo xam ne dañ ko créé te ki ko def mooy asaaniul hakim mooy ku xereñ ki créateur bu xereñ bi mooy bindkat bu xereñ bi chaque jour duma dinaay faral di wax fii doomu aadama day ñëw jël peinture jël tableau jël benn tablier bu njool mu dem taxaw ci wetu géej gi peinture am yooyu mu jaxase ko yu bula yeeg yu weex yi def ci lu ko neex taxaw ci tableau bi peinture ko ba mu rafet te li mu gis ci diggante asamaan bi ak suuf seeg ndox mi ak géej gi bato yi gaal yi nit ñi loolu dong la defar keneen ki daal di ñëw côté bi ci àll bi daal di indi moom it ay garab ay nangam ay nangam ay nangam taxaw di xool rek su paree ñu teg tableau yi di ko exposé ñu ne tableau yi dañ koy jaay ñëpp taxaw suñ ne 1 million nga dégg ñu ne tuuti na 2 millions tuuti na ñëpp jommi te pourtant ñooñu def ko ci li yàlla def la ñu xool defar ko ñun ñu koy xool guddeeg bëccëg ñun jommi wuñu ñu dessiné ko ñu koy xool jommi wala ñun ñu ngi ne taxaw di ko xool nii joomi wuñ biñ ko dessiné ñu ne kaay leen ngeen seet ko ñëpp daw jaral leen bàyyi seen liggéey bàyyi seen lépp jaral ci fay ay xaalis yu dul jeex pour jënd tableau boobu yóbbu ko sa kër te pourtant saa yoo xëyee waa ji li mu dessiné yaa ngi koy gis mu ngi nii taxaw sa kanam mais lan moo tax mooy ñàkk a def te amul bi ñu doon wax léegi léegi te loolu li muy tekki mooy nit ki su deful taamul def ay settantal ci aaye yàlla yi mooy du am ngëm sunu borom lépp lu mu bind lépp lu mu defar ku ko xool rek waaru ku ko xool rek gis ne yàlla mooy yàlla ba ci sunu bopp loolu tax yàlla bi mu ñuy woon aaye yi di ñu woon aaye yi di ñu woon aaye yi xool leen asamaan xool leen suuf xool leen géej xool leen jéer yi xool leen rab yi xool leen ba sax yenn saa yi mu ñuy orienté ci ci ci ay mala yu ndaw a ndaw a ndaw a ndaw a ndaw a ndaw ndaw yàlla mbindeef mi gën a lott ci àdduna yambare gën a yambare sax yàlla def cee joxe misaal muy lan ah yoo yoo boo ko ëffee mu daanu soo ko laal ak sa baaraam mu pacc yoo ñaata laaf la am loolu nga gis yoo ñaata bët la am ah ñaata bët la yoo am ñaata tànk la am ñaata kër la am ah allah suñ fi jógee tey ñi ñëpp dars bi ni ñëwaat ku nekk boo fi jógee nga dem gëstu ji yoo ngeen xool mbindeef moomu tudd yoo ci arab mu tudd albaouda ngeen xool ndeke du hasard yàlla di ko tudd ci alquran yàlla deful dara ndax hasard te yàlla xoolal yoo nu mu tuddee ñu ne la am na ñeenti bët yow est-ce que mos nga gis bët yi kan ci ñun bi moo mos a gis bët yoo fan la bët yooyu nekk moo tax foo dugg boo duggee ci juróom-ñaar fukki sànk sax ñu ne la ñun mënoo si ñuy dugg fekk la foofu boo pompee ñu ne la fekk ñu dugg fekk la foofu da ngay pompe ba sonn takk sànk ba sonn yoo dugg fekk la ci biir sànk bi waaw matt la allahu akbar sunu borom daal mooy borom mbir yi bés bu nekk mu ñuy won ci lépp nag mu ñuy won ne moom mooy yàlla te moom dong moo xam lim bind ba léegi ñun ñu ngi dund am na rab àll yoo xam ne xamuñu ko mu ngo beneen bi mooy sunnatu tadarruj fi tarbiya wa taalim gis nga dafa am benn yoon benn règle boo am ci àdduna mooy yoon woo xam ne yoonu entraînement la bis bu nekk ci yar ak jàngale gis nga yar ak jàngale ñi koy def suñu xereñul ña ñuy jàngal duñu am xam-xam ña ñuy yar duñu yaru képp kuy jàngale te xereñoo képp kuy yar te xereñoo amoo xam-xam xereñoo ñi ngay yar duñu yaru ñi ngay jàngal duñ jàng duñ jàng ñoom moo tax gis nga sunu borom jalla jalaalu buy jël yonent di ko yónni da koy entraîné da koy muñloo da koy xamloo loolu moo waral téere yi yonent yi am ay téere malaaka yi en malaaka encadré leen di leen indil wax yu ñuy jox doomu aadama yi léegi nag ñun su fekkente ne dañu bëgg a jàngal suñuy doom dañu bëgg a yar suñuy doom yow mi nekk borom kër ci kër gi nga bëgg a jàngal xale bi yar ko fekk yow loolu nga bëgg a def amoo ci xam-xam xamoo nu ñuy yare sa ponkalu bant ngay yor rek ak sa kurpañ ak ay saaga di mbëkk di dóor non booy bi dóor naa ko ba may bëgg a dee quoi léegi dafa dër kiis fekk du loolu benn borom xam-xam dafa dend ak benn waay dafa gane si benn sëriñ buy jàngal taalibe bi sëriñ bi di wulli taalibe bi pour mu jàng su ko dóoree rek gan gi ne ko arrahman allama alquran su dóoree taalibe bi gan gi ne ko arrahman allama alquran ndax yàlla mooy jàngale yàlla mooy xamale alquran du ay yet tey njuumte gi ñu gën a def bi ci gën a rëy mooy jàpp nañ le nit pour mu wàcc alquran dañ ko war a dóor ba mu dee wala mbooleem genn wàll ñi wàcc alquran dañ naan la xoola sama cicatrice bi xoola góom bi yat lañ ma fi dóor benn mbolde loolu musiba la nit ki mën nañ ko jàngal mën nañ ko yar sans ci sama whatsapp dañ may yónnee benn ay bind benn oustaz bu nekk ci biir classe di jàngale muy jàngale ba caag mu ne xale yi lan ngeen bëgg a nekk benn xale yëkkati loxo ne ko président de la république mu ne keneen ki keneen ki ne ko ministre mu ne keneen ki keneen ki ne gendarme mu ne kële kële ne douanier mu ne kële kële mu ne militaire mu ne kële kële mu ne directeur général mu ne kële mu ne saxaaba mais muy saxaaba yow saxaaba nga bëgg a nekk mu ne waaw xale yi daal di ree xam xam nga ñu luy saxaaba enseignant bi ne teg ba récréation jot mu ne xale yëpp génn leen mu ne xale boobu wax saxaaba la bëgg a nekk kaay yow toogal mu toog mu ne ko yow lu tax nga bëgg a nekk saxaaba mu ne ko parce que guddi gu nekk balaa may tëdd sama yaay dina ma jàngal xayaatu saxaaba dina ma defal benn dund kenn ci dund saxaaba yi mu ne moo tax ma bëgg leen ma bëgg a mel ni ñoom xam nga xale boobu ñu ngi koy yar ah xale boobu ñu ngi koy jàngal walla loolu mooy éducation nit ñi yooyu lañ bàyyi ñun ñu toog fii kan ci ñun moo am doom guddi jot bi ngeen reeree ba pare nga ni ko kaay mu ñëw nga jàngal ko kenn ci dundu saxaaba yi bu dee jigéen la nga jàngal ko kenn ci dundu saxaaba yaa di kenn ñun lan lañ kan la ñuy jàngal sunu doom yi eh, kii wiiri wiiri la ñuy bàyyi ak sunu doom yi guddi ak riirum tribunal ah moo tax lu xew du ñu am résultat du ñu am résultat loolu mooy wax ci kon ñiy jàngale ak ñiy yar il faut ñuy def tadarruj hmm? daf ay test di wut ay pexe olof yi dañuy wax ne euh, furna bu tëx a tàkk sébb bu tëx a tàkk nu ne lañ koy jéem a taale boo yoroon këriñ nga war a togg wala nga war a ataaye nga soxla safara nga yor këriñ këriñ gi tooy yor nga almet almet baa ngi nii waaye këriñ gi daa tooy nooy def da nga wut ay pexe di nga wut këyit di nga wuti essence di nga wuti pétrole di nga wuti bant di nga wut ñax bu wow lu nekk di nga ko wut di nga wut kóob pour rek lan nga bëgg pour na na këriñ gi tàkk kuy yar tamit noonu ngay mel tey da ngay jaar yoon wi suba nga jaar yoon wale suba nga tëral benn programme suba xoolal jigéen bi yar doomam ne ko doom mu ne mu ne ko saa yoo saaga wala nga wax lu bon demal nga gàllax ndiku ci dama nga jàppi sa njàpp toj na saaga day yàq njàpp demal saa yoo saaga rek demal nga jàppi xoolal kooku xoolal kooku niñ ko yaree moo tax léeg-léeg yaay yi ñoo yor yor yi ñoo yor yar yi képp koo xam ne sa kër bàyyi woo fa yaay joo xam ne day yar sa doom bu yeboo nga xam ne am nga problème moo tax ñu war a tànn ay soxna yu ñuy takk sinon rek dañuy am problème ci suñuy doom maa ngi ak sama WhatsApp benn xale bu ñu ma wa envoyé xale bi di julli def yaramu neen xale bu ndaw amut un an la am xaw ma di julli sili bu neen la def waaye di julli un an la xale bi am te day xabdu di jàng daal di sujjóot jógaat taxaw xale bu am un an di julli ah kooku dañ ko cee yar daf koo gis kooku dafa gis ndeyam ak baayam di ko def bu doon dafa gis ñuy fecc nu ñuy def xale bu tuuti la tuuti bu ndaw un an la am day taxaw di julli nii nii di julli kooku dafa gis ndeyam ak baayam di ko def su gisoon nu koy def lu muy def faaqidu shay laa yuuti ku amul doo maye ku yaruwul munoo yare beneen bi ci tegu mooy wujub albaraa min ashirki wa ahlihi fi wax ji tàmbulaawaatee fa la daanoo mooy dafa yell ci ñun ñu bàyyi bokkaale ak ñi bokkaale bàyyi bokkaale complètement ndax day yàq jaamu yàlla ñu bàyyi ñi bokkaale wala waaye mbir mi soo xamul li ngay bàyyi doo ko doo ko mën a bàyyi ki bàyyi bokkaale mooy ki xam lan mooy bokkaale waaye yow boo xamul lan mooy bokkaale ndax di nga bàyyi bokkaale da ngay nekk ci bokkaale guddeeg bëccëg dafa ne yaa ngi ci diine fekk li nga nekk dara baaxu ci kon mbokki jullit yi loolu mooy sunu darsu tey noo ngi ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu dëgëral sunu làmmiñ ba duñu tarxiis ma bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu ay wa iz qaala ibrahimu li abihi
أعوذ بالله من الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين بارك الله فيك جزاكم الله خيرا na yàlla fay la yiw mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala dañul di ñu joxoñ baaraam ci leeral mbiru gaa yooyu ñooy nga xam ne dañuy bokkaale yàlla loolu tax sunu borom subhanahu wa taala mu orienté tey sunu yonent indil ko lenn ci njubam di ko ci leeralal ay mbir ci mbirum baayam bii di ibrahim alayhi salaam sunu borom subhanahu wa taala mu ne wa is fàttalikul qaala ba mu waxee ibrahimu ibrahim ibrahim khalilu rahman ibnu adhar min awlaadi sam ibnu nuux alayhi salaam ibrahima xaritu yàlla la xarit goo xam ne sunu borom subhanahu wa taala moo tànn ibrahima nekk xaritam ibrahima tànnul nekk xaritu yàlla lan la yàlla wax wattaxaza allahu ibrahim ñaar la nag yu yu bokkul yu nuróowul yow nga bëgg ak ñu bëgg la ban moo ëpp doole ñu bëgg la maanaam ibrahima yàllaa ko bëgg allahu akbar mu nekk grade bu rëy wattaxaza allahu ibrahima xalila mbokk yi tey ku Macky Sall bëggoon wax sa tur journal officiel ñu génne ko génne sa photo ñu ne président moo la bëgg lu ngeen yaakaar ci kooku ah bu liggéeyul woon bu liggéeyul woon bu amul woon oto bu amul woon kër wala rek pourquoi parce que xaritu président la day dégg mu ne président sama xarit la am na benn waay ci dégg naa fan yi bu ra bu def bu wiiri dem ci nguur gi moom loolu doon ne président sama xarit la fu mu toog rek mu ne président sama xarit la ndeysaan waaw léegi nag ku nekk xaritu yàlla lan ngeen xalaat ci moom ah koo xam ne yàlla ci boppam moo ne diw mii sama xarit la Hmm. allahu akbar moom ibrahim góor gu tudd azara mooy baayam Aza- azara moomu dafa bokk ci doomi saam saam moomu daa bokk ci doomi nuux nuux lan la yonent ibrahima mi moom ngeen dégg ñu tudde ko abul ambiya mooy bàyyi yonent yi ibrahim turam bi maanal ism uxtilifa fii tur bi dañ cee wuute ci cosaanu tur bi ñenn ñi ñu ne tur bi tur arab la asluhu arabi wa minhum man yara anna asluhu kirdi wa huwa al arjah ñenn ñi dañu ne tur ibrahima arab la ñenn ñi ne doono turu kird la du turu arab te loolu mooy li li li lëng ibrahima dafa nekk yonent boo xam ne moom moo ëpp lu yàlla tudd turam ci alquran ibrahima alayhi salaam turam li ko yàlla tudd ci alquran moo ëpp turu yonent turu yonent yëpp ñaata yoon la yàlla tudd turu ibrahima ci alquran koo xam rek am montre tafaddal keneen d'accord uma ci yow de d'accord uma ci kooku wax cent de kon xam leen tur Ibrahima ñaata yoon la jàng Alxuraan yàlla wax na ah waaw Moussa waaw Moussa moo ci tegu Ibrahima moo ëpp Moussa moo ci tegu adadu ayat aaya ni bu aaya yàlla wax turu Ibrahima 52 aaya la ci 25 saar baqara la tàmbalee mu ngi yem suratul aala ñaata yoon 69 fois yàlla di tudd turu Ibrahima ah yàlla nee na Ibrahima mii rek inna Ibrahima kaana umma su ñu jëlee nit ñi seen ngëm yàlla yëpp ñu teg ko ci balance ñu jël ngëm yàlla Ibrahima kese teg ko ci balance Ibrahima moo leen gën a gëm yàlla du sunu morom ah moo tax ñu tëddee ko imaamul muwahhidin ñu ne ñi am tawhid yëpp Ibrahima mooy seen imaam ëllëg yowmal qiyaama allah te loolu leen koy woon mooy aaya yi nekk suñ kanam borom nee na ba is fàttalikul qaala ba mu waxee ibrahimu tur bi mu ngi tekki abun rahim bàyyi ju bëri yërmande mooy ibrahim abun rahim ñaari moo la ñu kole leen mu nekk ibrahim abun rahim ibrahima ba mu waxee kan la doon waxal li abihi baayam azara noonu la tudd am na sax ñuy wax ne ibrahima azara du baay ibrahima waaye alquran moo ne baay ibrahima mu ngi tudd azara lan la ak ibrahima wax at at atattaxiz asnaaman aliha waaw yow baay yow da ngay jël xërëm yi def leen ay yàlla asnaam jamut sanam mooy tamasil minal xajar aw minal xatab aw minal hadid baay da ngay jël xërëm yi jaamu leen def leen yàlla nga yendoo leen yat nga dem ut garab dagg ko weer ko ba mu wow nga ñëw yett ko def ko yàlla wala nga dem jël xeer yett ko def ko yàlla wala nga dem jël weñ suude ko ba mu ne keng nga def ko yàlla waa baay yow noo mën a jàppee xërëm yi di ko def yàlla loolu nag ay façon la démb gaa yi lu ñu doon def ay ay xeer ak ay bant ak ay lan tey lan la ah tey ay façon façon ah ñeneen doon samp ay bant ñi di samp ay xeer ñi di samp ay ñi di samp te am na gaa yoo xam duñ samp waaye soo duggee seen kër rek xam ni xam ñii fuñ bokk ndax da nga daan tël rek gis ngandum photo ci buntu kër gi wala ci biir saal bi wala sax waa ji ci dënnam bi mu takk fa benn photo mooy asnaam yi rek mooy sanam yi mooy xërëm yi benn la rek waaw benn kese la ak yeneen ak yeneen ak yeneen Ibrahima nag bi mu gisee baayam di yatt affaire yi def ko yàlla mu ne ko atattaxis asnaaman aliha yow baay da ngay jàpp xërëm yi def leen yàlla papa ji ne teg mu ne ko inni araaka wa qawmaka fi dalalin mubin baay li ma gis daal mooy yow mii yaag sa nit ñi ci réer ngeen nekk da ngeen a réer fi udulin an tariqil haq da ngeen a jéng yoonu dëgg bi ndax daal yàlla dëgg-dëgg warul nekk xeer warul nekk garab warul nekk weñ wu ñu yàtt yàlla wees na foofu kon yow mi wër yàlla ci ay bant ci xeer ci ndox ci ci yëgal ne da ngaa jéng walis yoonu dëgg gi yàlla wees na loolu wa kazalika noonu Ibrahima gis nga amee conscience Ibrahima bi mu juddoo nekk liir xam ngeen Ibrahima dañ ko doon wër balaa muy judd Namrud dafa ne woon xale jigéen bu am doom rey leen ko comme na firaaw na mu firaaw na doon def yaay Ibrahima bi mu yëgee ne dafa ëmb moom Namrud sax ni mu defoon moo gën a dangereux moom daa jël góor ñëpp génne leen dëkk bi yóbbu leen ci àll ba ne góor gu dugg ci dëkk bi danañ la rey benn góor bu mu fi dugg jege jabaram xam nga firaaw na moom dafa bàyyi woon góor ñeeg jigéen ñi nekk waaye mu ne ku fi jur doom bu góor ma rey ko Namrud moom xam nga nu mu def daa ñëw ci biir dëkk bi daa ne ana góor ñi kër gu nekk ñu génne paa bi mu taxaw fee ñu dajale leen ñoom ñëpp yóbbu ci àll bi nag ku dugg ci dëkk bi dee lu tax ñu ne bàyyi leen seen jabar yi benn gis benn bis bàyyi Ibrahima daal di yolleeku daal di ñëw ci kër gi daal di reer daa di sëy ak soxnaam delluwaat yàlla def mu ëmb ndaw si ëmb xam nga programme mu yàlla nit mënu ko surveiller yàlla bu jëlee programme nit mënul fànq programme boobu nit tuuti na ci téye programme mu yàlla ndax nit yàllaa ko bind kon nit naka lay téye programme mu yàlla ñi dof ci àdduna ñëpp mooy ñi yaakaar ne ñun kii buñ ko reyee wala kii buñ ko fi jëlee wala kii buñ defee nii wala lii buñ ko defee nii liñ bëgg dina am déedéet da ngeen nax seen bopp ñaata yonent lañ rey ndax diine bi taxaw na ñaata borom xam-xam lañ rey ndax diine bi taxaw na ñaata nit lañ rey ñaata nit lañ tuumaal tëj leen ci kaso ndax diine bi taxaw na ki dof mooy ku ne kii su ma ko tëjee wala ma rey ko wala ma wala wala wala diine bi dana taxaw diine bi day gën a continuer yàlla bu fi jëlee kii dina fi indi ku ko gën a garaaw xoolal Zakir Naik fan yi lan lañ wax ci moom. nit ñi dañu doon wax ne bu diidaat deewee kenn dootul am ku mel ni moom di tuubloo chrétien yeeg nangam nangam ah Zakir Naik ñëw tey jii police Interpol ñoo ne terroriste la fu ñu ko jàpp nañ ko indi. koo xam ne conférence am du ko def ci jàkk du ko def ci saal ci stade rek xejul ci xejul ci jàkk stade lay def conférence li mu tuubloo ci ay nit kenn xamul nu mu toll ci àdduna bi. indien la Zakir Naik ah li mu tubloo fi mu nekk nii.
même ministre français bi temps yii dafa génne benn statistique nee na nu ñuy tuub si musulman yi France yi lu ñuy tuub dafa 4 000 ñooy tuub par par par an.
ah parce que di islam mooy dëgg c'est que mooy li ndaw si waxoon rek biñ ko con biñ ko woowee ci benn cérémonie cérémonie islam. indi ay borom xam-xam borom xam-xam yéen doo leeral yéen doo leeral yéen doo leeral ba ngoon ndeysaan ndaw si jóg ñaan kàddu ñu ne ko bismillah mu ne man de li ngeen di wax damaa jaaxle gars yi ne ko lu tax nga jaaxle mu ne yéen lii ngeen wax ni est-ce que dëgg-dëgg réellement mooy islam gars yi ne ko wallahi loolu la moom nekk ci téere yi mu ne kon yéen bu ngeen dee di ngeen dajeek yàlla ñu ne ko lu ñu def mu ne ngeen yor lu leer lu mel nii lu rafet lu mel nii ngeen bàyyi nit ñi di dem safara kon yéen am ngeen responsabilité mooy wax bi maanaam l'islam mooy loo xam ne moo ñëw di sauver mooy gaal gi ñëw di sauver adduna bi waaye nag ñi ko yore di ko joow ak capitaine bi ñoo xamul maanaam mooy jullit yi ñoo xamul islam looloo tax islam am problème parce que jullit yi dund islam bi xamuñu islam maadaama jullit yi dund islam bi xamuñu islam kon islam day am problème ne islam kese en tant que tel moo ñëw pour sauver adduna bi. parce que programme yàlla la bu ñuy dund ci kaw suuf ndeysaan kon mbokk jullit yi jullit yi war nañu weesu tey fi ñu toll ci jaamu ay xërëm mu ne inni araaka wa qawmak fi dalaalin mubiin baay gis naa la yaag say nit say mbokk ñi la wër sa dëkk bi nga dëkk ngeen nekk ay nit yoo xam ne da ngeen a jeng jóge ci lu wéer dem ci lëndëm gis nga nit su bëggee am iman dafay xalaat ci mbind fi yàlla yi wa kazalika nuriya ibrahim malakuta samawati wal ard noonu laa wone ibrahima programme boobu maa ngi leen doon wax sànq ibrahima bi mu juddoo yaayam ibrahima def yaayam yaayam da kaa jur rek bëgg a jóg ibrahima ne karab ci loxo bi ne ko yaay ku ma moom kuy sama borom mu ne ko man mu ne ko yow kuy sa borom mu ne ko sa baay mu ne ko sa baay sama baay kuy boromam mu ne ko suñee nga laaj ko waaw boobu liir ñu ngi ko jur baay ji yaay ji daal di communiquer ak baay ji ne ko man ragal naa xale bi ñu doon wax maa ko jur de mu ne lu tax mu ne kaañ dem nga seet ko da koo nëbb wala Namrud di ko gis di ko rey bi Ibrahima ñëwee mu ne ko moo ngi nii Ibra Ibrahima ne téye ci loxo baay ji ne ko baay man kuy sama borom mu ne ko sa yaay man ku ma moom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko moom mu ne ko maa ko moom mu ne ko yow ku la moom mu daal di koy pes ne ko loolu du laaju xale beneen bi daf ko ne man ku ma moom mu ne ko sa yaay sama yaay ko moom mu ne ko maa ko moom mu ne yow ku la moom mu ne buuru dëkk bi mu ne buuru dëkk bi ku ko moom fu mu jëm càllale bi na dem rek fan la jëm allahu akbar moo tax yàlla mu ne naka noonu laa wone ibrahim malakut samawaat wal ard gouverner bi yàlla gouverner asamaan ni mu toll ak suuf lépp yàlla daal di koy won ibrahim lu tax wali yakuna min al muqinin ngir mu nekk koo xam ne conscience am imaanam danaan keng tranquille dara dootu ko tiital dara dootu ko jaaxal ci àdduna wala yàlla won ko malakut samawaat wal ard gars yi ku ñu won asamaan lépp ba mu jeex tàkk won la suuf yëpp li ci nekk ba mu jeex li nekk ci diggante bi lépp nga xam ko ndax di nga jaaxleeti ndax di nga tiitati lu sunu borom nag wax na li tax mu def loolu mu won ibrahima malakutu samawaati wal ard lu tax waliyakuna min almuqinin ngir mi bokk ci ñi am yaqin allahu akbar moo tax ibrahima ngëmam gi ne kenn kenn mënu koo changé lu nekk sunu borom subhanahu wa taala def loo na ko ibrahima waaye ngëm gi ne kenn fa lamma janna alayhi leyl bi guddi gi jotee ba lëndëm janna alayhi leyl ay azlama bi mu lëndëmee daa di guddi ñuul ibrahima raa kawkaban fi mu tëdd ci ëtt bi mu seen biddiw kawkab ndeysaan bi mu seenee biddiw bi mu ci xalaat di ci xalaat di ci xalaat di ci xalaat di ci xalaat ba ci yàgg qaala haza rabbi mu ne man lii mooy sama borom Ibrahima fan la déparé lan la bàyyi xërëm yi mu gis baayam di yet moom d'accordul xërëm yi nekk yàllaam ndax lu tax yow yaay jël xeer bi yatt ko defar ko ba mu rafet peentir ko defar ko bët defar ko tànk defar ko loxo ba pare nga dellu ne ko yaa rabbi te yow yaa ko defar wala mu ne man man lii daal am na riwaaye yoo xam ne dañu ne Ibrahima baayam da doon jaay yàlla yooyu moom da doon jaay da ko ne demal nga jaay ci lii la ñuy dund Ibrahima day jël jaar ci mbedd yi naan kuy jënd lu ko dul jëriñ ñu ne waaye ndege xale bi li muy wax kuy jënd lu ko dul jëriñ ñu wax ah su nit ñi déggee loolu est-ce que dañuy jënd wala duñ jënd kenn du jënd su ngoonee mu daal dem yóbbu ko ci dex gi mu ne naanal yenn ngaa wër ba sonn yaa ngi jaroo naanal xërëm yi ak teg xam nga noonu la ko doon def bàyyi ji dégg wax ji nag bàyyi ji am commencé am ak moom problème moo tax Ibrahima bi mu tëddee guddi
mu gis biddéew yi
raa kawkab qaala haza rabbi ah sama borom a ngi nii xoola fu mu jóge ak fi mu yegg kon moom kon moom dépassé na doomu aadama yi départ na bàyyi na nit ñi ci suuf jëm na kaw asamaan fa lamma afala ba mu suuxee lan mooy suux ay xaaba biddéew bi absenté niiri muur ko qaala laa ubu laa uhibbul aafi man bëgguma kuy suux bëgguma yàlla boo xam ne day feeñ di nëbbatu génn ba nit ñi gis la nga dugaat man bëgguma yàlla bu mel noonu laa uhibbul aafiliin fa lamma raa alqamara mu jékki-jékki rek bi biddéew bi duggee mu gis weer wi ne saraax ne fang baasix ne jàkkaarloog nit ñi ni muy def 15 bu amee 15 jours ne feng ci biti qaala haza rabbi nag éy sama borom a ngi nii nag kii mooy yàlla ndekk xoola fi mu départ ci lu ndaw dem ci lu ngand ci suuf la départ yéeg ci kaw ba mu demee ci kaw mu bàyyi lu ndaw dem ci lu lu mag fa lamma afala loolu tamit daal di suux rek mu ne qaala la in lam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi dalin maa ngi déplacé di toxu rek jóge naa fii dem fii jóge fii dem fii giñ naa ci sama borom bu ma yàlla jubalul dinaa bokk ci ñi réer ñi sama borom bi may wër su ma jubalul danaa bokk ci ñi nga xam ne dañoo réer qaala la in lam yahdini rabbi cey suma sama borom jubalul la akunanna danaa nekk min alqawmi dallin ci nit ñi réer ñi fa lamma raa samsa baziqan baziqatan xool leen fii ñaari mbir yàlla ne fa lamma raa alqamara mu ne lan na nga noppi ah baziqan fii mu ne fa lamma raa samsa baziqatan ñaari bokkuñ fee xan fii xatan lu ko waral lu ko waral mbokk yi ana ñu jàng arab ñi jàng arab yow arab nga jàng waaw waaw bismillah ñëwal ban gis nga ci islam ci ci tubaab jant ak weer ban mooy góor ak jigéen mooy jigéen lan ngeen di wax laa lin wala samsi lu ngeen di wax le le soleil weer wi ngeen ne foofu kon jigéen la ci islam weer wi mooy góor jant bi mooy jigéen ci islam jant jigéen la moo tax yàlla mu ne fa lamma raa shamsa baazixatan gis nga taw tanis fële mu ne fa lamma raa alqamara baazixan jant ci islam jigéen la weer wi mooy góor ci sourate Yaasin da ngay dégg yàlla mu ne wasamsu tajri ndax mu ne yajri la bu nekkoon góor mais mu ne tajri fii lu mu daari wi ñu ni ko taaw jigéen waaw wal qamara qaddarnaahu gis nga kon ci islam weer lan la góor la jant mooy mooy jigéen sunu borom ne fa lamma raa sams ibrahima ba mu gisee jant bi mu ne fang nag leeral addina bi ala haza rabbi mu ne maa ngi doon wër ponkal bi nag ngand maa ngi nii nag ki mooy ngand mi haza rabbi ki mooy sama borom ñu ne ko lu tax mu ne haza akbar ki mooy ku mag ki waaw war na wax dëgg gis na bidéew bidéew ak weer lu ëpp weer mu ne kii du yàlla weer wi mooy yàlla weer wi suux mu ne su ma yàlla jubalul ma alku mu yeewu gis jant bi ne fang mu ne ah ndeke man damaa defoon sànq erreur moo tax ma jàpp biddéew beeg weer wi kii moo leen gën a ngande kii mooy yàlla mooy sama borom. falamma afalat gis nga ba tey rek la mu ngi feddali ne mu annas la ba mu suuxee. xala yaa xaw mi mu ne yéen nit ñi ñu ne ah mu ne nii bari un mi maa tushrikun bàyyi naa li ngeen di bokkaale gis naa yàlla nag leer na tey ki indi bi déew bi jële ko fi feeñal weer wi jële ko fi indi jant bi nëbb ko kookoy yàlla loolay dëgg ah yaa qawmi yéen nit ñi inni man bari un ku dañ laa mimma tushrikuuna ci li ngeen di bokkaale man kat bis ni ki tey maa ngi def sama déclaration di wane fu ma bokk inni man wajjahtu jublal naa waaw aqbaltu jublu naa bi qalbi ci sama xol bi inni wajjahtu wajhiya jubal naa sama xar kanam bi ak sama xol bi lillazi ci ki nga xam ne fatara moo fent asamawaati asamaani wal ard ak suuf si jëm naa ci yàlla de bàyyi naa bokkaale ni ngeen di bokkaale jubal naa sama xar kanam sama jëmm ak sama xol jox naa ko yàlla tabaraka wa taala lillazi ci ñeel ki nga xam ne fatara moo fent lan mooy alfitra fatara mooy lan alhamdulillahi allazi fatara fatiris gis nga baat baa ngoog mooy moo fent lan mooy fent li mu def amul fu mu ko jële loolu mooy fatara yàlla li mu def amul fu mu ko jële doomu aadama dafa tabax bu muy tabax am na fu mu ko jële wala fu mu ko jële ci suuf si suufu yàlla bi la jël ciment bi fu mu ko jële weñ bi fu mu ko jële kon doomu aadama fentul yàlla nag moo fent bi muy bind suuf fu mu ko jële bi muy defar asamaan fu mu ko jële ah mooy fatir mooy créateur bu mag bi doomu aadama nag day ñëw fekk li yàlla def mu coppate ci defar doomu aadama day fekk lu yàlla def ana menuisier yi fii ñan ñooy menuisier yi ci biir jàkka ji ana menuisier yi seen bant yi ngeen defar lal yi fu ngeen ko jële garab yi garab yi yéen a ko saxal ana maçon yi tabax yi ngeen defar da ngeen ñëw rek tabax fu ngeen jële suuf seeg ciment bi ana soudeur métallique yi ah voilà ñooñu ñëpp dañuy fekk li yàlla defar ñu coppate ci defar ana uude yi ñuy defar dàll yi fu ñu jëlee der ah kon kay defaruñ dara benn waaye dafa defar benn kii bu garaaw jaay woo ay borom xam-xam kaa leen ngeen xool li ma defar kenn yow mu ne moo lii li nga defar lii moom lii lii beesut de mu ne yow yaa mu ñeme yàlla lii man kenn maa ko fi musa def nga ni di beesut mu ne foo jëlee weñ bi mu ne ah yàlla mu ne ba pare kon kay weñ bi def yow defaroo dara lii amoon na fi bu yàgg yow yàgg xamul woon amul lii amoon na kooku daal ne salaw daal di noppi mu ngoog dafa am kenn kuy wax mal faidatu lil insaan mu ne doomu aadama lan mooy njëriñam ci suuf si muy dund mu ne léeg-léeg doomu aadama gis lu bees mu ne lii daa bees mu ne beesut de amoon na fi fekkee woo ko am na ñu ko kere woon dem seen yoon bàyyi ko fi dee tey jii pyramide Égypte yi pyramide yi ngeen di gis Égypte fii lañ ko fekk wala fekk ñu ko fi ñaata at la am ku ko xam ah te scientifique yëpp nee nañ liñ ko defaree moo gën a defar ciment birig yi ñoo ëpp suñ birig yi même niveau yi ceer bi ah xool nañ ko ñu ne dara gënu ko ceere ci àdduna filapolom yi ñu ko doon def kon ñan ñoo ko doon def ponkal yoo xam ne dañoo ngand bet birig yooyu ni ñu toll benn birig nga xam ne sawaay toll na 100 kilos fi lañ koy teg ñëw teg kon ñan ñoo ko doon defar tey jii ñu wàpp ne ñun xoolal gaalu nuux bi ko nuux di defar étage la ko defaral picc yeeg nit ñeeg rabu àll yi nekk ci biir ñetti xeet yi bokk nit ñeeg rab yi ak njanaaw yi nekk ci ana architecte yi boobu nuux lan la ban école la génne ah waaw bu nit ñi yaakaaree ne léegi lañ muus nit ñi dañoo dof nit ñi bu yaakaar ne léegi lañ muus yàlla wax na qawmu aad kaanu yanxituuna min al jibaali buyutan ba pare aminin dañuy fekk montagne bu nekk ak ñu xool ko xool ko wër ko ñetti yoon taxaw daan ne gars yi samp leen kër yi ñu ñëw jël seeni xeej yatt ko def ko ay kër def ci ay buntu néeg def ci tout def ci ay lal di tëdd di nelaw di yeewu montagne bi nekk dëkk ñoom daawuñ dem di tabax ciment jël fii birig di tabax non non day ñëw fekk montagne bi ñu yatt ko def ko wala du loolu la ñu yàlla wax minal jibaal la yàlla wax buyuutan ba pare aminin mu am sécurité ngelaw mënu ko faa jële kenn mënu ko faa buusee law boo demee ba léegi fekk fa montagne yi ne kenn toog waaw léegi nag la doomu aadama yi defe ne dañoo avancé fekk lépp lu doomu aadama yi defar dafa beesaat noonu la nit ñi def nit ñi dañuy beesalaat ordinateur bi ñu njëkk a defar génne ko ci àddina bi ñu ko doon defar fan lañ nekk ci biir lañ nekk di ko defar ci biir ordinateur bi lañ ko nekk di ko defar tey jii ordinateur daanaka xeewi na ndax da ngay gis yi ñu yor ci suñuy loxo yi moo gën a gaaw moo gën a yomb moo gën a lépp looy am ci sa ordinateur mun nga ko am ci sa portable te na nga nga néeg nii la sa loxo léegi des na tuuti ci at ci kaw bu njëkk ba gis ngeen téléphone yi ñu doon def ah téléphone yi gis ngeen ko yooyu ñu doon ñu yii fixe yi télécentre yi gisati ngeen télécentre voilà gis nga ni muy xewee noonu chaque jour noonu la àdduna mel yow da nga yow ne lii amu fi woon fekk am na yaa ko fekkewul woon rek am na ñu ko fi defoon ba dem yow nga ñëw bee salaat di ñëw di indi ñëw ñëw indi ñëw di indi ñëw di indi moo tax mu ne ci kaw suuf si amul lu bees lu fi am loowu loo xamul woon rek waaw mu nga su ko defee Ibrahima a ngi noonu sunu borom subhaanahu wa taala di ñu nettali mbiram ba mu gisee lii lépp fu mu mujje mooy lii mu xool yëpp daf ko indi orientation ban orientation mooy yàlla mooy yàlla ndeke yii may gis ni du tus du yàlla xool na biddéew bi li mu njëkk a gis mooy xërëm yi ñuy yet mu ne lii moom du yàlla mu gis biddéew mu ne du yàlla mu gis weer mu ne du yàlla mu gis jant mu ne du yàlla kon lan mooy yàlla mu ne lii indi yii mooy yàlla loolu la xel di jëriñ lan moo tax ñun tey ñu am problème mooy suñu xel yi lañ bloqué waaw léeg-léeg ma ni sénégalais yi dañoo sàcc seen dañ leen a tafu seen xel yi tafu ñoo tafu seen xel yi mais am na yoo xam ne tey ku koy xool fii ci dëkk bi da ngay xam ne dëgg-dëgg ñii dañoo sàcc seen xel diine boo xam ne sa waay woote woo yoo xam ne bés bu nekk ñu dégg ñu bees ñuy woote bés bu nekk ñu dégg ay caaxaan bés bu nekk ñu dégg ay foo diine yoo xam ne foo kese kese kese kese kese amul amul julli amul woor amul jàng alxuraan amul zikr amul dara njaaloo naan sàngara def lu bon rek ñu ne diine la loolu ko am xel du ci dugg sunu borom nee na Ibrahima bu mu gisee yii yëpp bàyyi na ko jëm ci ki nga xam ne moo sàkk asamaan ak suuf ba pare mu ne xaniifan maa ilan ani dalaali ilal huda maa ngi jéng ci lépp lu bon jub ci islaam ba pare mu ne wama ana déet man minal mushrikiin may bokk ci way bokkaale yi bokkuma ci de duma musa bokk ci way bokkaalekat yi kon Ibrahima maa ngi noonu sunu borom subhanahu wa taala doon ñu indi lenn ci ay jaar-jaaram ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu jéggal ñu njuumte yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu boo amee ay laaj su fekkee am na ay leeral incha allah yu ñu ciy war a dolliwaat bu soobee sunu borom